sele le naan ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax ci ni nga dirisee CRD bi dirisee nga ko ci yéene ak pas-pas dirisee nga ko ci compétence ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan te wéral la ak mboolem chef de service yi fi nekk yëpp ndax kenn ku ci ne la mu man wax na ko la mu yéene wax na ko sax am na lu ñu sakkuur sax ñoom ñu fàttali na ko ba ñu bañ def kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax di sant itam maire Touba ndax liggéey yu mel ni yàgg na cee yëngutu yàgg na cee def yàgg naa defal liggéeyu màggalu Seex sàmba lu bari xëy na daaw lañ ko deful ngir ay gàllankoor waaye at yi ñu koy def yépp da ciy am taxawaay bu rafet li ngi leen ci sant bu baax di sant ci biir lool moom itam maa u rahma ndax moom it xëy na sëñ Moustapha Dieng mi mi ko mi ko jiite dafa am gàllankoor waaye warul na ñëw teew te wóor na ma ne suñu délégation demee ci moom la ci war la mu war a def yëpp dana ko def amat sëb incha allah ñu ngi sant itam Touba ca kanam ñoom itam dañu xam ne dafa am mission particulière bu ñuy def boo xam ne moo tax bëgguñu di leen woo ci yu bari waaye lu ñu dégg ci li ñuy def la ñu am ci logistique danañ ko indi danañ ci jàppale ba mu mel na mu mel ndax sëriñ abi bu xam nañ ko bu baax te ñun ñëpp ci Touba ci kanam lañ bokk kon ñu leen sant bu baax di sant itam nag mboolem koo xam ne kii amoon am nga yéene ju rafet ci bis bi la nga ca mën nga def ko ci buñ boo déggee sa tur ak boo ko déggul chef de service fii jël engagement itam ndegam màggal gi xat na du mën a am évaluation kenn ku nekk na ko bàyyi xel ba bala ñuy àgg la le 25 yu ci bari mën a sotti lañ ci war a def yëpp ñu mën koo def loolu monsieur le gouverneur ñu ngi la koy ñaan nga li leen ko bu baax a baax surtout ñi nga xam ne moo jëm ci wàllu Euh, bois mort bi nga xam ne bois morte bi nga xam ne danañ koy soxla ci lu bari ci li ñuy def ci bisu màggal gi ñu fexe ba autorisation yi teel a génn ñu mën koy yónnee ña nekk foofa ci Tamba ñu mën a am jumtukaay yi indi ko ba duñu am benn jafe-jafe loolu moom it ñu la koy fàttali bu baax a baax gouverneur di sant yàlla bu baax nag di gërëm itam bu baax ndax ñii fi toog ñëpp day dara du seen yitte lu dul liggéeyal ma sàmba rek dara du seen yitte lu dul bisam mel na bis yépp ndax loolu dafay koo xam ne noonu la toll ci Sëñ Tuubaa nii ko Abdou Wahab Gaye waxe léegi rek mooy li ci ëpp solo mooy Sëñ Tuubaa mas na jóg bis ne damay bëgg a fatu waaye koo xam ne am na lu muy wax na ko wax ma sàmba koo xam ne am na lu muy joxe na ko ko jox ku ko mënul delloo la nga yoroon sëñ Tuubaa dem na ko wax na ko ci biir discours bi léegi kon Cheikh Massamba foofu la nekkoon noonu la taxawe woon dox yi doxinam noonu la woon fa tabaarakallaahu waaye dara mayu ko ko nag lu dul bëgg sëriñ Tuubaa ba mu jeex tàkk waaye bëgg lislaam ba mu jeex tàkk doon taalibe itam bu baax waaye nag doon lépp ci sëriñ Tuubaa kon loolu lu ci baab wax ak liñ ci njëkkoon wax doy na sëkk fa tabarakallahu ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di bu baax a baax bàyyi kenn di santit comité d'organisation bii nga xam ne moom la ñu àndal te yor màggal gi am nañ ci pas-pas am nañ ci yéene am nañ ci bëgg-bëgg fa tabarakallahu bëgg nañu mu mel ne màggal yépp ba bu àllëgeeg si biir nu mu war a fu mu war a àgg mu man faa àgg ndax bis yi kat seeni borom rek a koy defar nag keneen du ko defar état nag dana ci jàpp li mu man waaye li ci ñoo seeni borom a koy def kon loolu nañ ci góorgóorlu bu baax ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp ñu àgg ci ak jàmm te génn ci ak jàmm te lépp loo xam ne ñaan nañ ko fa ci ay kaamil alquran ñaan ko fa ci ay xasida nañu ko yàlla na ko suñu borom nangul mas aatu aatu jaañ ci nekk euh, isbu tarxiya da wax déglu dee damay dee aatu laa wax aatu jaañ mi nekkoon isbu tarxiya dafa daa def fu ma gisee ci cérémonie yooyu daf may wax ne sëñ bi seen yëf lañ yor de li ngeen yor de Seex ma ko moom daal di génne àddiyee di ko joxe sax ndax loolu ku am pas-pas la woon te sëñ yuusu mii fi nekkit noonu la mel kon ñu ngi leen ñaan ñoom ñëpp ñu participer ci bis bi liñ ci man lépp ñu def ko ci ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen